Thank you. them, wanna my them, yo yai them. In you chara no sin moromo. Come sit see my love, oh. Yai them, wanna my them, yo yai them. In you chara no sin moromo. Kangoni beguna lalo oh. Walta kodi macholo Sumademe beikhol ningi toge Sarafe tai tahul madugu sinyo Ningi solo tahul madugu sinyo Sejiko jubak chine chitse muneko sinyo Komo madugu sinyo Come oh, oh, sit see my love, oh. Yo yai dem, wala mai dem, yo yai dem Yo jara dosen moromo Ulem Baima, Ulem Fatima jàmm rek ngay am man maru ne luma la waxu du deñi sonko bi nañ bëgg mu génn kër gi faatu toog ndax foofu du place am place faatu génn ndax lan noonu war a toog yow faatu yow Fatou ba nga waree toog daa yàgg te toogoo. seytaane yow Fatou yow Sonko bëggu fii sa papa na dala koy may sa bàjjen wax nga ne bëggoo Sonko tey bëggoo Sonko ëllëg amul dara. yëqul yaxaasul dama lay laaj rek yow yaa ko fi waxoon toog fii naan Sonko xetam ak dëlëram bu la xeeñee ngay bëgg a. yow toogoo fi woon ne Sonko xetam rey na fas ci uddam. waaye tey yow boo toogee yow déglu ma yow maa awa déglu ma. tay su toge mom mi fàttu ba ne dafa bëgg sonko kon leneen nag ci biir yeen la motax ngeen bëgg xaaliss ba nga démé ba nga démé ba xol ba gis ne sonko tukki na ah ngay doga bëgg nak sonko tak la. yow la motax nga saytaane yow. <laughs> wa saytaane ci yeen la fekk baax yeen yi nga xam tok di yaq dir mo ngay eh, déssé doyna yow suñu dil yoy ñuy tek mo la jagal bo fatali ko ba ngay jógee tak ba di takko ka tekki ba tay nga wara mëna def sa verre bu ak bu baax kon yow ñun suñu dil ñun waro ko tuddu waye de. yow gàcce ngaalaam ak suñu ko de instant bi xalé bu ndaw la fekk ci pooju ndeyam ak bayam ni tok salaamaaleykum. aleykum ani soxoma. Ba jàmm Na naamaale. ani soxoma. Bismillah. Ba na soxna da. ñu yendu jàmm. waaw. jërëjëf. jërëjëf. na ngeen def ak rek. Ah, ngi waaw. sëñ bi naa def. naa xuru ka naa nii ne. iyo. ale barika. sëñ Mor ne na. amul bu leen waxi dara. Ah. dara waxi leen soxla. waaw sëñ Mor sama xarit la. Uh-huh. Uh-huh. sama doomu ndey la. Uh-huh. daa problème ma dama indi ko fii ci yow. te fu indi ku ne. war nga ci dëgg la man tam indil la ko dëgg la jàppale ma ko loo ci mën rek jàppale ma ko ndax sama doomu ndey la dëgg la waaw waxi lii sa soxla sëñ bi daal ñii samay doomu ndey la mhm. Mhm. saa yu ma amee problème ñoom si jàppale mhm. da di nag dama am sam benn doomu jigéen ci kër ga nu mu tudd Fatou góor yi la wala jigéen yi sëñ bi nag tamit Fatou góor turu jigéen la ah, waaw ñu yor ko ci diine ak l'islam ba soo ko gis ko bëgg ko takku ko kon tey boo taxawee fii naan ay sonko kooku mooy nekk ci kër gi sëy sëy bi ba sëy bi neex. yow dangaa tardé yow may ma may ma yéen moom waxuma seeni wax. Eh, yéen moom waxuma seen ay wax ñii moom bu dee ñoom ngay déglu bu dee ni ñii ngay déglu sa dara du baax. yow nga xam ne dangaa seytaane fumiste eh, ànd ak fumiste ànd ak waabu ci boppam. waaye waaye kon waaye kon man bii ngeen di def man duma ko def. mooy ñu ngay mbérel mbérel lekk sa bii duma ko def. bii duma ko def. yow lu raw loolu nga def bëgguma yow. yow man dama yaakaar ne yow leneen war nga koo xalaat yow li war na fekk nga toog ci sa salon bee di lett ka defee leen ak yeneen waaye nekk ci ci di. yàgg naa teg sama salon bi la tegal dil tegal dil. yàgg naa teg sama salon bi bi génn naa ci. yow waroon ngaa waroon damaa génn ci teg eh, ma ma ma pare naa ci mënuma fee bi ma tegal dil yàgg naa teg sama salon bi xool kàddu gi. muy jadd kii xam ngeen lan la xam ngeen lan la gis nga kii buy ànd teg yéen man damay damay bàyyi groupe ma ne ba mu amee ba bañ ko jàppale ba mu am li muy am ba pare war naa mën a beew sama appartement sax dafa dafa dul ñëw te wax yéen seytaane la de demee ala ngaaka nu ko lii wax sama jaraa jëkkër boobu mhm. sama jëkkër da ko bëggoon a may sama doom ci mhm. naam sa damaa bañoon mhm. te boo gisoon mu bañoon xale bi góor bi amul dara bu takkoon sama doom bi tamit da koy sonal dong moo taxoon ma bañ mais léegi nag fan yi ñu toll nii. Mhm. xale bu góor bi dafa tukki. commencé naa tekki te fi mu nekk nii. Mhm. sama nijaay dana daa am keneen ku ko takkal te tey ci guddi la war a sëy mhm. daal man daal dama bëgg nga jàppale ma loo mën a defaree ba xale bu jigéen bu mu dugg ci kër gi. sama doom daal laa bëgg mu sëy ak si biir kër gi. loolu rek la. kese doy na. naa buru ko nii xar su ko kumbale. yow man gisi na lépp xami na lépp demi na fépp amu na bu jigéen bu tuuti bu nekk foofu yaayam la yaay xale bu góor bi la xam naa Vai, pula, levanta, ai, ri. naakuru ko nii naa. Umar na wax sa gars yi nag dañu bàyyi ba ñibbi. mi ngi xëccool gi ma ni sama yére bi. ah Sunkale yoo mi ngi nii di ma ko waxu ku jigéen ku tuuti gi. dafa xiibanu fanaa moom de ba jëkkër ji gaañoo ba léegi daa mel ni xel bi dafa def day ci kër gi amu ne keneen ku topp ci ginnaawam ku góor ku ñuulu ko ku amu biiri bi sama jëkkër la mooy papaay xale bi waaye loolu moom dafa mel ne juru sax sama doom bi nee alhamdulilah waxoon nañ ma ko ñëw nga fii léppay faju alhamdulilah rabbi alamin so bëggee mu demi wala mu dee wala mu doofu déet bugguma mu dof tey bugguma mu dee mën daal damaa bëgg nga defar ma daal loo xamante daal sama sonko mais dina tax sama joom yii mu sëy ci kër gi loolu daal laa bëgg ndax sama jëkkër ji bu dee wala mu génn kër gi dama maay sonn rek gis nga bii ma lay ju du la defu dara naa xur ko nii naa naa xur ko naa mujjee toogali rek bii ma lay joxu jiga taatu ndaali fa nga koy defi. am naa ci bu rëy koy defi. loo waxi dina waxi waaw. loo bugul dugu bugu dina baaki. man maa la ko wax man maaru ne bu tiiti bu ragal yi du yàgg maa dégg ni ma la ko waxee na nga ko defee noonu du dégg boo ñëwulu nag moom dina ñëwi. du ñëw ndax man dinaa ñëw du ma sa ñëw. baaxi na dugali ko ci taatu ndaal yi bii buy añi. nangu ci defi tuuti kubéer. su muy añ moom. kubéer yi si cini bi. kan sama doom wala sama jëkkër. jëkkër ji. Ah, sama jëkkër man. loo waxi dina waxi loolu. bu soobee yàlla sëy bi du ami. nga def ko ci bitéeli bi si cini bi. sunko man na jofolo kide nan ko defi du ñu la laaji bul waxi du ma ne maay waxi ñoomi ñooy waxi xaari ma ñëw ne weexil la kunde na xurgo na mine yo baaxi na baaxi na nga may jox chai dem, wanna mind dem, yo yai dem. E yo chara do sen moro mo. Come sit see my love, oh. Chai dem, wanna mind dem, yo yai dem. E yo chara do sen moro.